Afrique fii euh, wax dëgg yàlla mooy Érythrée moom moo tëj classement bi mooy 180 pays bi nga xam ne wax dëgg yàlla foofu journalisme sax amu fa. waaw parce que foofu benn télé moo fa am benn rajo kii léegi nga ñëwaat nag aussi nga ñëw ci Maghreb bi aussi Maghreb bi aussi Algérie Tunisie même euh, Maroc ñu lay wax aussi euh, Sahel. Euh, Burkina Mali ak Niger Niger actuellement am na ñaari journalistes yi fa nekk prison barki Dembo Ndiaye la ñu dugal kenn ki euh, nga ñëw Burkina am na fukk ak ñett euh, médias internationaux yoo xam ne ni mënatuñ fa sax tàkk muy France 24 RFI tout cela donc problème la lu ñu gis mooy enfin mooy fépp fu jeune te nekk maanaam militaire foofu moom presse liberté de la presse dafay dafay sooxe te loolu moo xew Mali Niger